رب الكريم من màggal bu tuuba ak dayo bi mu am tax na ba ndaje mi nga xam ne moom lañ doon amal ci gouvernance bu Diourbel di CRD bi yàggoon na lool ñu doon waxtaanee mbooleem ponk yi nga xam ne jëm na ci organisation màggal gi. li dale ci kaaraange gi dem beeg dikk bi courant ndox mi. ak lépp loo xam ne màggal gi mënu ko ñàkk waxtaanee nañ ko ba jël ci ay matuwaay. màggal Touba gu ren gi nag dana laal ci nawet bi ak taataa yi lépp gouverneur ne daañu ci jël ay matuwaay. li ñu mën a jàpp daal mooy kenn ku ñoom kenn ku nekk ci ñoom dina góorgóorlu ba benn yoon du fat yoon wu ne oto loolu nag soxal nañu lool. ndax dafa bari ay jeexital ci circulation bi ci sécurité bi ci ndox meek ci lépp donc loolu la ñuy ñaan yàlla waa ONAS góorgóorlu ci ba site de déversoir yi di dox waaye ñëpp ñi nga xam tam war nañ joxe ay hydrocureur ñu jàppale ñu ba nga xam ne benn yoon du fat suñu objectif daal mooy benn yoon du fat néewuñu ne yoon bu mu am ndox mais ben yoon du fat ndax am ndox loolu nag am wax naa nañ ci bu baax dinañ ci góorgóorlu màggal bu Touba ak mbooloo mu takku mi nga xam ne ñoo fi dajee tax ba daan nañ fi nemmeeku ñàkkum ndox loolee lépp gouverneur mi ngi ci dalal xel yi wàllu ndox mi nit ñi war a jëfandikoo ndax xewu diine la yem ak jamonoy nawet jamonoy nawet daw day tàngaay la aussi te xewu diine lislaam dafa soxla ndox xewu diine fa mu laaj ndox fu nit ñi bari fu mu soxla ndox loolu ñu ngi ci góorgóorlu waaye ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo ci taxawee ak entreprise la ñuy liggéeyal ak fournisseurs ya ñu baral seen loxo ñu baral seen loxo ba nga xam ne li ñu am ci forage lépp di dox mooy Fooba Touba am na benn forage li ñu bëgg mooy bala ñu naan camion citerne bala ñu naan bâche yooyu yëpp ay ndimbal yu war a ñëw dooleeku ci mooy li ñu am d'abord li ñu am lépp mu mën ñoo daal mu jëriñ mu mën a dox loolu am nañ ci yaakaar te loolu mooy suñ objectif comme ni ma ko waxee ci yoon yi léegi benn yoon ba ne fatt benn yoon waaye forage yépp tam di dox bu ko defee suñu amee loolu te yaakaar na dañ ko am ci tànk yi ñu taxaw plan d' action bi nga xam ne évalué nañ ko fii ci salle bii ak offort directeur général maa ngi koy gërëm euh, bu ñu doxalee plan d' action yooyu am 100 citerne ak quatre-vingts bâche d'eau booleeg waa eaux et yi ñu war a dolli ci ay ay citernes am naa yaakaar ne xëñ na problème bi bu jeexul tàkk tam dina wàññeeku ku nekk mën a jot ci ci ndox mi loolu am nañ ci yaakaar xanaa ngeen ñaanal ñu ci rek yàlla mottali ko. comité d'organisation bu màggal Touba gi nga xam ne Serigne basiir Mbacké Abdoul Khadr moo ko jiite ginnaaw bu mu rafet loo matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko. moom ñëwaat na ci li nga xamante nii mooy màggal gi ak dayoom. te xam nañ ne am na suñu kilifa bu baax bu daa wax ne kuy defaral ñëpp seen bis sa bis mënta waxaale kon màggal gi xam nañ ne borom koy defaral boppam li ñu ci war nag ñun ñu ko seq mooy ñun ñu koy saytu ak yéen ñi ñu ko seqal mooy kenn ku ci ne xool lam jàpp ne mooy tax liggéey bu baax lay tax liggéey bu jot. mu def ci yitteem def ci jom def ci postéem def ci àndoxoom kon gouverneur lii nga wax dégg nañ ko bu baax kon mu ngi la ci sant bi ci gërëm di fas yéene tàbbi ci liggéey bi di xam le màggal gi day ngir mu màgg a màgg ndax xew-xew bu ñu toll bëriwul ci adduna si ndax yi nga ko war a dëkkale néew na Afrique amul bu ñu toll Sénégal moom amut xew-xew boo xam ne lu mat juróomi million ñu ko ci xayma te at mu jot foo ko natt bu weesu kon boobu xew-xew képp koo xam ne yàlla suñu noonu dogal na mu nekk ci sa biirum réew mu sanal la saf sag la moo xam nga bokk ci yoonu murit moo moo xam nga di jullit moo tax moo xam nga dëkk ci réew mi sax te ci lislaam kon képp ku fi dëkk rek na nga xam ne màggal gi sa bisu ndax bisu bu Sëriñ Tuubaa wax ne ne ko sant la yàlla la ci wàllu nit ñi natt ci xayma ci wàllu koom-koom itam muy jural Sénégal njëriñ yu bëree bëri kon màggal gi moom rek mooy feet bi nga xam ne réewu Sénégal bu ci perte waaye la ci gagné kon nag jàpp naa ne dayoo bu ñu ko jox. ak yitte yi ñu ko jox rek waris na ko yokk waris na ko jox lu ko ëpp ngir bu fekkente ne bu fekkoonte ne amuloo njëriñ réew mi itam te xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa yi ñooy bàyyi ko fu ne ak jullit yi ñëw di màggal si Tuubaa kon loolu mboolem bi ci wax rek waris na ko def rawatina nag muy loo xam ne boroom xool ci koom-koomu Sénégal wax nañ ko waxati ko kon jërul dellusiwaat waaye amal na njëriñ Sénégal amal na njëriñ yëpp kon lépp lu yëkkati def ko ci màggal gi yeyoo na ko ndax ab dayoo moo àgg foofu. màggal bu Touba édition 2019 bi fas yéene doon ci mois d' octobre bi comité d' organisation bi ñoom daañu door seeni programme ci mois de septembre bi. محمد صلوات الله في أبد عليه في إذن كل به الآن